journaliste di rédacteur en chef bu ma jumul ci boobu les quotidiens di euh, tribune tax ba ñu dem jëli ko wax ko entendre par rapport ak li nga xamante ne bind na ko euh, ñu bëri euh, quand même tuddee ko atteinte à la de la presse da nga ko ko da koy partagé en man de journaliste laa boo xam ne à chaque fois ma dégg ñu ne journaliste mi ngi nekk ci jafe-jafe ak yoon ba xañ liberté man cee am sax li ma li may njëkk def rek mooy di ko di ko naqarlu parce que comme yéene moo ko sama bopp du ma ko yéene benn journaliste mais dafa am euh, loo xam ne euh, dama yaakaar ne war nañ ko gën a jàngaat ñu journalistes yi particulièrement ñun journalistes yi mais également ñëpp ñi nga xam ne euh, avec développement wu réseaux sociaux yi développement wu technologie dañu am possibilité mën a toog fu leen neex di wax ñu leen di dégg mhm. xam nga soo demee ci fu ñuy jàngale journalisme dafa am benn cours spécifique bu ñuy jàngale tuddee ko étique et déontologie. Euh, di ci jàngal journaliste yi lan la yoon wax ci seen euh, nu ñu koy waxee seen liggéey lan la ci éthique wax lan la ci moraal wax. man may wax très souvent que ni euh, journaliste bi également ci liggéey bi muy def de tous les jours war na jàngaale li ñuy wax responsabilité. parce que liberté boo mënti gis il faut mu ànd ak responsabilité pour que pour que liberté boobu mën a am sens. te responsabilité boobu euh, ci ñin ko gën a xaar mooy journaliste yi nga xam ne dañoo jàng seen métier xam ko mën ko moi je parle pas des gens yi nga xam ne dañu xëy suba rek ne cëpp ne lay ne dañuy informé wala dañuy def nangam ak nangam xëy na l'éthique de responsabilité en général mën nañu bañ a tekki xam dëgg dëgg dëgg lan la tekki mais journaliste bi nga xam ne yow soit da nga jaar ci école wala ñu forme dans les rédactions nga nekkoon ci loxo ay yenn journalistes yi comme yi ma yi nekkoon Walfadjri en en son temps mag ñi fi nekkoon forcément da ngay intégrer lu ñuy tuddee responsabilité. Mhm. responsabilité mooy tax man journaliste ma doon du information bu ma jot ne war naa génn du débat bu ma neex ne war nañ koo poser parce que suñu état yi ñu nekk état yii muy Sénégal ak yu mel ne moom ay état la yoo xam ne euh, ci bu boo dee xool ci durée de vie wu état ay état yu yu yu jeune lañ ay xale lañu ay état yu jeune lañu yor état yu jeune yooyu. très souvent dañuy dañuy fragile trop te ñi nga xam ne ñooy sol tenue takk der yi en général dafa am rôle bu mag a mag a mag boo xam ne ñoom moom la ñuy jouer ci di gérer état yooyu te ñun suñu Sénégal gii ñu nekk yàlla dimbali ñu ba muy Sénégal ba léegi takk der yi ñu am bokkuñu defe naa maam Biram dina koy wax parfois bokkuñu ak takk der yi ngay xam si yeneen réew. si yeneen réew da gis ay takk der yoo xam ne jànguñu xamuñu. Mm. ay boroomi fit lañ. jàng nu ñuy xeexee jàng nu ñu yore fetal mais ñun suñu ay euh, suñu ay euh, militaire en tout cas seen i kilifa en général ay nit lañ yoo xam ne ñi jiite réew mi buñ leen gënul jàng dàq ñu leen a jàng ñoom ay intellectuel lañ en fait loolu moo ñu permettre ñun Sénégal 1960 euh, ba léegi ñii nga xam ne moom lañ tuddee larme di ko woowee la grande muette la grande muette mooy ki nga xam ne mooy màgget mi nga xam ne du wax wala boog mag mi nga xam ne dafa muuma du wax dara mais ñun ñëpp xam nañ ne euh, lu ñu gàtt gàtt xam-xam xam nañ ne di dëkk de 1960 ba léegi suñu grande muette boobu mënul mënul bañ am ay crises yu ko traversé par force da koy am parce que euh, euh, ñi fa nekk c'est des gens de notre société. yëg-yëg yi ñu am moom la ñuy am défaut yi nekk ci ñun moom mooy nekk ci ñoom qualité yi nekk ci ñun moom mooy nekk ci ñoom en général mais mais depuis boobu ba léegi muy ci Senghor ci Abdou Diouf ci Ablaye wadd ci Macky Sall ba tey ci Bassirou Diomaye Faye suñuy état yi dañu am euh, yàlla daf leen dimbale ñuy gérer la grande muette ay contradiction ak yëpp ñu fexe ba koy gérer ci gestion bi nga xam ne moom la gënee léegi bu ñu demee ba euh, euh, ñu nekk ci réew moo xam ne journaux yi bari na site internet yi bari na télévision yi bari na rajo yi bari na am na information yoo xam ne man de journaliste la te dégg naa defe naa maam Biram di ko wax démb su ma ci su ma ci jotee je traite ça avec prudence parfois je me dis ni am na yoo xam ne du waxtaanu journaliste du waxtaanu penc ko di daf may fàttali maam Biram benn guddi euh, boobu Ablaye waat mooy président au Sénégal ñu toog ba mu jàgg rek gars yi tàggi Ablaye Wade mhm. ne faatu na coow ne kurru ci dëkk bi mhm. euh, jamono jooju Pa Mokhtar mhm. toutes les rédactions de Dakar yëpp yëg nañ ne Ablaye Wade ma nga France te faatu na en tout cas tàgg nañ leen toutes les rédactions de Dakar jéem nañ ko vérifier ba ñu bari ci ñoom amoon nañ yàqin ne lii moom dëgg la dara du ko dindi. Mm-hmm. jour boobu je rappelle très bien man maa mi ngi ma fekk populaire ci vérification yi ñu doon def on a euh, certainement mi ngi nekk di ma déglu Abdoulaye Wilane bu parti socialiste xam boobu opposant la. Mm-hmm. ñu ne ko dañu bëgg laaj Ousmane Tanor Dieng ba xam comme moom il connaît un peu euh, le monde comment ça est-ce que am na information bi ñu am. Mm-hmm. xam nga bi mu ko laajee Ousmane Tanor Dieng ko lu ko wax. daf ko faatu président de la République lu ñuy waxtaane ci presse. te boobu moom opposant wu Ablaye Wade la. mu ne faatu président de la république lu ñuy waxtaanee ci presse. mu ne mbir la moo xam ne armée moo koy gérer. ba installer son successeur xaw ma nu ñu koy waxee. ba jël en tout cas toutes les dispositions nécessaires ñuy doog a def un communiqué officiel pour que nit ñi am cette information là. mais c'est pas quelque chose qu'on apprend à la rajo à la télé. dans un pays normal. de la même manière. en deux mille vingt quatre. je me dis y a des choses qui se passent ci biir réew mi. du lu ñuy dégg ci rajo wala ci télé. te man li nga xam ne moo ma dérangé dans tout mhm. mooy cette information là concernant le général Kandé c'est c'est bien Kandé. Mhm. bu ñu ko joxoon un traitement journalistique. mooy wax ne lii la ñu yëg comme information bind nañ ko. Mhm. kenn du ko reproché kenn. mais dama ci gis benn volonté de nuire. benn volonté de de je dirais même de déstabiliser un nouveau régime en régime bu ñuy soog a teg régime boo xam ne tey jii nii waa xëy na waa Pastef yi xamuñu ko xëy na ñun journalistes yi xamuñu ko xëy na opposants yi xamuñu ko mais li nga xam ne moo constant mooy Ous euh, euh, Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. fi mu nekk nii ils ne tiennent pas 30 pour cent du pouvoir au Sénégal parce que ñi ñu nome ñoom mooy ministres yi DG yi quelques euh, éléments de la police ak yooyu mais liy doxal état ba léegi ay nit ñu fa Macky Sall bàyyi woon ñoo fa nekk un régime comme ça dafa soxla euh, je dirais pas que presse bi accompagne ko sa je le di a aucun journaliste mais dafa soxla benn stabilité dafa soxla benn calme pour que régime bi installé wu ndànk-ndànk ba lépp mat mais su fekkee lii ñu tuddee un conflit daf ci am ma gis ñu jox ko un traitement presque tendancieux parce que lu tax ma ne un traitement tendancieux man dama gis ñu ne dans un premier temps c'est Afrique confidentielle c'est bien ça. Hmm. moom moo bind ne ak lii moo xew ci diggante général Kandé ak autorités yu bees yi. Hmm. le directeur de Publica en tout cas le responsable de, du site def benn communiqué pour wax ne moom site mësul bind loolu mësul bind loolu malgré tout malgré tout tey la presse sénégalaise en tout cas certaines publications de la presse sénégalaise reprendre la même information defaat ko ci gimiñu Afrique confidentielle bi nga xam ne wax na ne mësul wax loolu mais loolu su amee dama naan yaa a y a autre chose qui est en train de se passer dans notre pays que du parce que faire du journalisme pur et dur mooy informer juste et vrai mais avec responsabilité ñun ñii pendant les douze ans de Macky Sall wala pendant les douze ans d'Abdoulaye Wade en tout cas de 2000 à maintenant man ma ne ci presse bi amul semaine wala weer woo xam ne doo dégg information boo xam ne da ngay choisir ne lii on ne le dit pas on ne l'écrit pas te loolu responsabilité moo koy maye mais bu ñu tollee ci réew moo xam ne. kum neex bind lu la neex wax lu la neex dara du la ci fekk ça pose un sérieux problème et loolu daf may dellu ci thème mu live bi maam Biram doon def démb mm. mooy les risques de mm. euh, de la rupture ah, les pièges les de la rupture mm. parce que tey les les pièges c'est quoi mooy dañu am un nouveau régime boo xam ne danaan man kat diggante mars 2021 ak léegi régime bi ma remplacé teg na fi sénégalais yoo xam ne xalaatuma ko di ko teg beneen sénégalais léegi kon jëratul ñu fi topp kenn ndax dafa wax wala dafa bind wala nangam ak nangam mais si on est dans ça mais ay Moustapha Diop dañoo bari ci dëkk bi. il vont continuer à écrire et à dire des énorm des énormités mm. tous les jours. Mm. et un régime un état ça ne fonctionne pas comme ça. Mm-hmm. un état ça ne fonctionne euh, euh, moom euh, lu mu am avis wute na ak peut-être position bi nga am Moustapha Diop moom mi ngi jàpp que ni nous pensions avoir dépassé ce stade Ousmane Sonko vous ne nous aviez